maa ngi Samagai, de fay sama gars yi di ànd ak dem ci signature de contrat cité ak Papa Sow Maris ci Marius Ndiaye bi nga xamante que le président de l'association des promoteurs Pape Abdou Fall moom moo ko tëgg tey rek jëli la fa gën neex ngir jox ko suñu mbokk internet yi nga xam ne ñu suivre combat bu am solo hein waaye combat la bo xamé dañ naan euh, euh, c'est le combat de la remontada di combat bo xamanténi que bokk na ci combat yi nga xamante ni que Siteu su ko prouvé kenn du ko tere dem ci loge bu mag bi Cheikh bu ñu fàttaliku ni Siteu ci euh, combat la juge jóge ci défaite euh, digganteem ak guy gi euh, sa kii Papa Sow moom tamit jóge ci defet ci digganteem ak ki xam ne moom mooy Ama Baldé kon ñoom ñaar ñëpp a jóge ci defet waaye combat bi ci combat challenge la boo xamante ne que combat bu arrangé ci la ci kaw bu ci amee ndam waa xam de waa xam nga mën nañu enjeu la waaye tamit aussi pas fi mu ci carrière euh, d'habitude mbër mu fa mës a da ngay euh, say say morom Euh, dëgg la sax papa nekkul euh, mbër yu mbër yu mag yooyu parce que génération ñoom Modou xarañ loola mën nañu génération ñoom Ama Baldé la parce que ca CLAFU 2005 ba bu ñu fàtte ni que papa euh, bokk na ci ba bëre ceeg Modou Lo Modou loo daan ko kon tey dëgg la Siteu Papa Sow moo ko mag moo ko jiitu ci làmb dégg nga Siteu li muy wax chaque jour mooy Papa Sow mbër moo xam ne dama ko yàgg supporté la yàgg ko topp yàgg ko bëgg aussi kon donc bu Papa Sow wàccee xëj na moom tamit dafay bëre ak Siteu pour gën a réconforter waat position am ndax daan si te dina tax yeneen xale yi ñëw parce que bëreegul tamit aussi ak euh, yenn xale yi mën nañu Ama Baldé rek euh, la fi la fi bëreem gum euh, te Ama presque du xale ci moom Ama daanaka moromam la ndax Ama moro moromu moromu mooru xariñ loola kon tey papa bëre ak Siteu am ci ndam tamit aussi da fay tax cachet gëna a parce que dina ci amaat yeneen adversaire yo xamanteni ne que amaana euh, ñoom ñooy euh, ñoom ñooy ëpp si taxawaay ci li nga xam mooy làmb ji. Euh, bu ko cité daanee lolu catastrophe la euh li tax mu nek catastrophe moy Papa ku ne xam na instant bi mu toll Fass le la jugee nan la jugee face jugee fa à l'amiable comme jugee bo xamanteni xëñ na parti dafa dem tay ba bëgg a ber écurie eh, magi faas ñaanal ko eh, gërëm ko accompagner ko ne ko demal ko ubbi écrit non non dafa jugee ci eh, ci benn air de tension air boo xam ne papa dafa mer parce que avant mu fay jugee bu ñu fàttali papa toog na at yu bari wala boog weer yu bari yoo xamante ne que demul entraîné ji fi nga xamante ne que moom may Fass loolu ñëpp teg seen bët ba tout le monde se posait la question est-ce que rock énergie la bokk wala day ànd ak Modou Lo nii rek xëj na la ko jógeloo Fass amaana. Euh, taxal nañ ci Modou Lo Modou démentir na ko papa moom tamit taxaw na ni moom munul dëkk parcelle Modou Lo dëkk parcelle euh, moom muy def dara wala Modou def dara te te moom papa du ci jàpp mais est-ce que waa Fass euh, bëgg nañu loolu wala bëgguñu ko loolu lépp leeruñu waaye daal li ñu mën a wax te li xel mën a jàpp mooy que enjeu problème mu Fass foofu la jógee ci ko maanaam ci ci copinage bi nga xam ne am na ak ki nga xam ne mooy Modou Xarañ Lo gis nga waa Fass nee nañu dàquñu ko. moom taxaw ne waa Fass ñoo ko dàq ba tey ubbi na tey benn académie jàmbaar wrestling ànd ci ak ñoom père ba ànd ci ak mbër yu ci mel ne ñoom Batika dégg nga barki de mooy Ndiaye euh, ñu dañu wax euh, ne ñu am na yenn certain mbër yoo xam ni quitté nañu ñoom tamit ku ci mel ni Tafa mbër dem xam dem fekk ko ku ci mel ni ñoom góor a soog mais tey ak nii mu jugee fas tey su daanoo tey ci combat bi est-ce que waa Fass duñu ko yey yow Cheikh Omar bi ñu àndee gis nga ma posé ko la question. keroog ci teeru bi ci premier ak site néna ko est-ce que tay buñ la daané duñu la yey tamit enjeu la buñ ko sax waxuma sax mais dañuy taxaw carrément na ah, gis nga de mo ngi wala matagul di fi di face. créer benen écurie enjeu bi en même temps no def dana wàccaat ci suuf mu koy neex ak mu koy naqare te bu wàccaat non day wàccaat ci suuf parce que ku Siteu daan Cheikh Omar ku la dese waa waa dama non nag ma ni su ko daanee tey bu ko Siteu daanee fan la pas jëm mais du baax ci moom mbëru ndaw yi dañuy yéeg te mbëru ndaw yi bul fàttali ne ay ñoom Dieng Kayre ñu ngi fi a ñoom Quench ñu ngi fi ay ñoom Moussa Ndoye ñu ngi fi ñoom <laughs> mbër yooyu tey kenn du tee tey papa papa tey may leen li nga xam ne moom mooy chance.

Euh, valeur marchande am nag toujours dafay dépendre ci li muy indi moom ci làmb parce que <laughs> kuy bëreeg moom mu neex la ak mu naqari la coow dana la rey parce que Siteu <laughs> mbooloo mi mu am dañu dañu dañu fidèle ci moom euh, gone ak janwaar la di doomi janwaar waaye bu ñëwee feefam mooy diggante jàmm gën ak caaro yeeg boor boobu yëpp si <laughs> Siteu moo fa teg tànk buñu fàtte nga Cheikh Omar Siteu bi mu bi mu màggee ba ñëw ci làmb yi

fi ñoom Balla Gaye yegg tey ñoom Modou Lo yegg foofu moom Siteu foofu la teg bëtam bu bu daanee Papa Sow dafa yéeg waaw Cheikh Omar bu ñu fàttali ni ki Siteu laajoon na fi Ama Balde nëgëni daaw mu nekk coow lu bari ñu naan warte laaj Ama Balde Ama du moromam nangam ak nangam mais Siteu tey su daanoon tey Papa Sow Ama tey trébuché ci Modou Lo ñaanaluma ko Cheikh Omar lan may am kon mu neex mu naqari ama dina ko jël te rêvam yëpp ku ne xam na ni euh, rêvam nekkul des fi mu bëgg a des rêvam mooy daan Papa Sow daal ci Ama Baldé parce que Ama Baldé bëri na ak kee xam ne moom mooy Papa Sow donc euh, xam na fi mu jëm xam na li mu bëgg xam na aussi li muy def donc nañu ko bàyyi xel mbër la moo xam ni euh, mbër mu xam mbër mu mbër mu mbër mu redoutable la mbër mu mbër mu mbër mu bari xam-xam la mbeur mo xamante que la xamna bu baax fi mu jëm ak limu bëgg def donc Papa Sow aussi n'a pas droit n'a pas droit à l'erreur mais mu neex ko mu naqari ko combat la bo xam dina am bagarre hein ah. combat la bo xamante que dina am bëree mais si teew tamit aussi Cheikh Omar na moytu bu baaxa baaxa baax Papa Sow ki muy bëreel c'est un piment euh, ki muy bëreel bu ñu fàtte ni il fait partie l'un des héritiers bi nga xamante que tay ñoom waroon a mën a donn tey Moustapha Gueye ki muy bëreel tey dafa bokk ci l'un des héritiers yi nga xamante ne que tey ñoom ñoo waroon doon kii nga xamante ne que moom mooy Gris Bordeaux kon ñàkkul mën a bëre mbër mu redoutable la mbër mu mën a la mbër mu bari xam-xam la mbër mu xarañ la mbër la moo xam ni mbër mu mën corps à la kon tey li ma mën a wax Cheikh Omar mooy dinañu assister tey signature bu neex si te tey dina génn slogan bu bees man loolu lu ma leer la dina indi mbooloo mu bees waaye dina indi it pecc mu bees kon nañuy ànd ñun ak yéen ak mbokki internet bi seetaan ki xamante ne que moom may face to face Siteu ak Papa Sow. si tàng noonu may mu ngi noonu ànd ak ñi mu war a mu ngi noonu ànd ak tarkinaa yi parce que ne dugub mu noonu gis ay Siteu la mu noonu def mbooloo bu am fit xale bu am doole xale bu ñeme boppam xale bu dëgër fit fitee la l'enfant du Dionewar la mu ngi noonu léegi mujj naa dugg mujj naa dugg mu ngi noonu def li muy def di roulé ak moom Max Mbergane dafay wax ak moom mu ndam la bëgg ku naan yal mbin mooy kilifa gi la cinq ay la cinq man buur tiit naa tiit naa la cinq dara yee rasulaay bi combat ay c'était le phénomène de l'Ansar ak Papa Sow le piment de l'écurie Fass bés la ay gone ak janwaar bi xale na waxoon na leen ko màgg na xoola Siteu xoola Siteu mu ngi naan tarkidaay jeex na mu ngi naan jeex na mu ngi naan jeex na ay Siteu Siteu ngi noonu xool ko man mais man li ma jaaxal Siteu dafa kontaan tey Siteu dafa kontaan non mais Siteu lu ko taxaw kontaan. non man Siteu. xoolal Siteu. Siteu dafa kontaan lu tax. xoolal lay def. Siteu maa tay lay def. Siteu a ngi show. xoolal Siteu. nee na la yaatu. nee na na yaatu waxuma ko Siteu moo ko waaw na na yaatu nee na na yaatu nee na na yaatu Siteu na na yaatu Max Mbargane ngi wax moom waaw lu Max di wax moom xaw ma Max ngi wax moom xam na ko moo ko yar moo ko yar le tarkindaay la le phénomène de اي ستة ستة انا ما عملها من ستة اي ترك الناي اي ترك الله ابو خير خالة ستة ستة لا كونتان لو داخ ستة خل ما دال لان لا لو خيو خالة ستة ستة فو مجم ستة فو مجم ستة جلي لي موم ستة فو جم ستة كبير جلي لي موم Siteu lu ko tax a rakkaaju tey lan la. Siteu Siteu lan la tey Siteu. tarkindaa ko yónni wax na ko yàkkamti ko. ko yónni yàkkamti ko. neex neex naqari jëli. neex neex naqari bu ñu demee ba mu ñëw daan ba paasoo ñu teg suñu ngeen. waaw ilaah ilaah eh. dama lay wax Siteu lu muy wax Siteu lu muy wax. Siteu lu muy wax xaw ma ko dar ki ndaala dar ki ndaala Siteu dar ki ndaala ay Siteu dar ki ndaala ngi noonu di dugg dugg na ci biir Siteu ngi noonu di dugg dugg dugg na 远吗？ Goku! sukunya. Sukunya, sukunya. Wow, wow. Sukunya, sukunya, dina jaman ayu. Sukunya, sukunya. Sukunya, sukunya. sukunya. Papasok, sukunya, sukunya. Papasok, sukunya, sukunya. Papasok, sukunya, sukunya. Sita Allah. Sukunya, sukunya. Sita Allah. Papa, sukunya, sukunya. Melalui sukunya. kita kejar, kim. sukunya. Melalui sukunya. Melalui sukunya. Ya sudah. Ya sudah. Sénégal ba jéggi frontière yaatoo Sénégal ba jéggi frontière yaatoo Sénégal ba jéggi frontière te MMA di nga fa toj mel na ni si ta jomal leen Kita dapat yang dalam anak baik kalian. siyaare siyaare Kabese Fall King Baba teew na e Kabese doole ju na xale yi tëri na jàmm ji na man boo may jaay réew ma wala ma ni nga sa papa la nga ni dama dugg jeel di di yàq sama demee c'est pas méchant ne ko du génn léegi te nga ko ko dégg dëgg la waruma génn ñi nekkoon si kaso bi wala ñu ma gënoon bëgg nga ko ba si biir jël bi da doon taan bi laajal seen chef yi ne nga fee nga ko yàlla dee ko kese fi te genne bu xiifee du dégg jaat gumba bu tëxee du nangu ñaan man bàyyam fa kenn fi caxa caat ba ñu déggee génn naa ñoom ñëpp a ngaan bii jeem gaa gaa ka moom jeem bii gaa ka moom jii ka moom bii jeem gaa gaa moom face to face bi gërëm it encore Mame Boye Diaw parce que bis bi bis bu rëy la ci moom mu ngi koy préparé ak ay mbokkam di ko préparé ak Sénégal yëpp mu jël bis bi dëppee ko Matar Ba te kuy wax Matar Ba président la ko dëppee teg ko ci loxoy Matar Ba kon loolu ñu ngi koy rafetlu beneen bi ci des képp koo xam ni xam nga Pape Abdou Fall xame nga ko ak aussi ci foofu dafa fay taxaw tuuti parce que depuis quelque temps

parce que évolution benn investisseur benn homme d'affaires du ko bañ kon maa ngi ñaan encore état du Sénégal euh, le ministre de l'environnement mu xool ak ñi nga xam ni ñooy yëngu ci domaine boobu mu seq ay ak parce que Sénégal moo ñu ñor ñun ay développeur lañu ay investisseur lañu kon lépp loo xam ni kanam Sénégal d'accord nañu ci mais nag nañ leen toog loolu benn taxawul bu ma ci doon def Agricash nag tey mooy sponsor bi bi ñu ñëwee di téléchargé dafa am juróomi billet yoo xam ni maye na ko billet bu njëkk bi ci biir làmb bi la billet bu njëkk bi Mansour Sow la bu dee yaa ngi fi sa numéro de téléphone 78 183 04 la li ci des xam nga ko Brigitte seen numéro de téléphone. maa ngi nekk di di nuyu suma mbokku taalibe yi nekk fii ñëpp maa ngi leen di nuyu jërëjëf ginnaaw boo nuyoo ba pare dañuy bàyyi Papa Sow moom tamit mu nuyoo Papa Sow le leader de Jabar Wura monsieur Papa la nga nuyoo d'abord. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu bu nekk sa tur ak sa sant du nuyu Pa Abdou Fall mi fi dajale du nuyu Siteu suma adversaire du nuyu le parrain Mame Boye Diao. la lumière s'il du nuyu kulli kilifa diine kilifa aada ñu ngi nuyu ñu ngi àdduna di ñaan yàlla jàmm yàgg di nuyu presse bi di nuyu assistance bi yëpp. bàyyi jili ñu ngi lay ziar bu neex bi di bàyyi dem ba wasalaam alors Siteu combat la bu nga xam ne dafa am lu mu la jaral te tey wone nga ko keroog dafa am xar kanam boo indi gars yi ah Siteu da xëy na dafa changé léegi mais tey da ñëw tàngal ko jër sa gars yi bi ñuy dugg si dama dégg ñu naan bu xaayee waaw luy loolu bu xaayee ñor bu yaa ngi dégg loolu tapi wadd am na mais lu xaay xam nga garab mango bu xaay bu xaayee rek ñor na ñu dem suñu xool leneen combat bi dañoo gis tey nga indi xadal indi beneen xar kanam papa ba nga xawoon a respecté mel ni ku ko rus tey nga ñëw ba max ko bundu xataal ko wane beneen xar kanam loolu day wane ni Siteu combat bi dafa ko toll. waaw li may wax si loolu sax balaa ma si avancé damay nuyu suma mbokku séeréer yi. foog na séeréer laa foole séeréer yi bisim noonu laa foole séeréer yi mi hirwaa daa noonu bay on inu on daa noonu on dukar noonu laa noonu andoona ngaa woy jën andun bihedam combat faneke o sittam combat faneke o tamtam combat faneke o tamtam no haarno séréer no ha anolama oyo séréer ha ñowa dogof mi heɗam mi ondugorof simna kel fayes mi simma kel fayes tena lay ho mi simnama ba jërëjëf andul ñëw maa leen di woo andul suñu ilier maa leen di woo ñu jàppale ma suñu combat bi ndax leen amul lu dul nit amul lu dul mbokkam man séeréer dama koy wax comme ni may waxee olof man doomu séeréer laa ci yaay ci papa man fi ma dëkk mënuma ragal da ngay jël gaal soog a dem déggoon ma la wax man lu may dox di ragal géej slogan bi lenn la góor jàpp ci góor pour laa du noonu kii nag mënu ma ko wax li ma waxoon si loolu laa li ma waxoon si loolu laa nekk ba man làmb làmb ku ma fekk sama trois sama très trois ru boo ma rusuloo pour yi rusuma wokk làmb nag laay def oh wala ma koy wax. papa. tey également dama gis beneen papa mu mel ni depuis que Jàmbaar Wrestling Academy taxawee papa dafa am lu nga xam ne daf ko bëgg a wone parce que mooy nekk première sortie bu leader bu écurie boobu mu am nag loo ci bëgg a wone am loo ci bëgg a wone sa diggante ak Siteu loolu lan la lu tax tey papa ñëw indi xadar indi xumb indi lu nga xamante ni ñu bari gëj nañ ko gis ci moom. waa sant yàlla rek. di ñaan yàlla jàmbaar Wrestling Academy bokk ci écurie yi gën a mag ci écurie fu écurie egguloon rek yàlla na ko fa yàlla eggale bon di wax rek bon làmb la quoi combat bi bi ñu koy jëli dañ ko jël ci beneen kër ba ak ren euh, jàmbaar fekk ni si ñu war ko def mais affaire du ay carrière affaire affaire jàmbaar xam affaire la la suma carrière laay relancé waat incha allah ci combat bi waaye nga ni combat bi combat bi ci laa bëgg a relancer suma carrière incha allah. combat bi ci la bëgg a relancer carrière mu nekk un papa New Look ni jàmbaar wrestling academy nekk une académie New Look loolu leer na te ci Siteu nga ko bëgg a jaare Siteu nee na ko bëgg a relancer carrière am te fii la ko bëgg a jaare loolu moom la concerné loolu concerné wu man daal damay ñaan yàlla suñu borom may ma ndam di samay xaritu démb di woo ñi nga xamante ni foofu laa sookee ko muy jàmm gën maa ngi leen di woo ñëpp jàppale ma ci bis bi loolu laay sàmm ma daan ko jëlum sa sànq dama gis nga jekki dugal gauche gauche dugal droite gauche wane ni ci wàllu xeex namm nga say loxo ndax dañu nar a gis Siteu a nga xam ne moom la ñu gisoon digganteem ak sos sa digganteeg Papa Sow licence daal li ma mën a wax mooy man pare naa combat bi aw ma lenn lu ma ci wax lu dul jëf aw lu may wax ci aw ma lenn lu ma koy wax aw ma lu ma koy wax. mais moom nee na dafa bëgg a relancer te ku bëgg a relancer wu. ci ndam loolu moom la mu concerné man loolu concerné wu. moom relancer la bëgg yow loo bëgg. yal na ma yàlla may ndam di ñaan kilifa diine yëpp di ñaanal ma man daal di mais papa yow tamit gis naa la sànq. nga def chassé croisé def gauche droite ah, def ay crochet yu wóor a wóor mu mel ni le papa explosif bi nga xam ni dooroon na fi mbër mu daanu moom lañ nar a gisaan wala boog. waaw sant yàlla rek dañuy uti rek ni ko yàlla mayee rek ñu jël incha allah rabbi sur le plan de la préparation papa nan la waajalee combat bi parce que ki ngay bëreel dafa njool te yow naama ko. waaw ñun ñu ngi liggéey selon adversaire bi rek ñu koy visionné ñu xool si te li jëm a liggéey ci loolu mën naa balaay boobu yaa dina defal jàmm incha allah Siteu ki ngay bëree bu taxawee presque fii la lay yem ndaama la alors bëreeg ndaama ci njool mu toll ni yow lan la laaj bu bës ba waaw li may xoolee rek laa may xoolee man moom géej laa waxoon naa man moom géej indi sa pam wala nga indi sa pam yooyu taxul ma jeexlee mooy di ko talee càmm gërëm si kam mbaaw jëm sam-sam dem mbooroo sama fan si yëpp maa ngi leen di woo waa Joal waa Joal waa Kaolack maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn woo ñëpp di wax ne bis bi dafa ne yow kafe yow moom foo yow moom ma ko nar ma teg kafuma ci ah. réewuma ci lii yàlla nag bu ma jaral na ma nag lu ne kii moom ma fuuf combat bi lu mu la jaral. waaw di profité rek. waaw bàyyi profité bi. di woo Médina Fass Colobane Gueule Tapée HLM grand Yves Diaw bu Fass maa ngi lay woo ci combat bu baax ak grand Mbaye Diop président Fass Benno waaw di leen wax ne milieu sportif mag buy tëdd heure di lekk heure di yeewu heure tuxoo naanoo demoo fenn yaakaar naa di nga am fraîcheur dégg nga loolu mag muy teel a tëdd di lekk lu baax demoo dikkoo toxoo boo fekkoon ndaw ci géew dina xam ne ah du yomb. waaw xale boo xamante ne nag yow li nga bëgg da ngaa mu nekk fa dem ngay raam di toog di di yolli yolli di def di jéem muy métti xam-xam bi taxaw ngay xuus di jaar di dégg heure nekk bàyyi gëmuma succès gëmuma xaalis gëmuma dara kon donc làmb ji moom est-ce na ko ñàkk. si te waxal ak papa waay <laughs> mais làmb ji garaaw na de. foowuma de dama bëgg nga xam ne man foowuma. mais papa nee na foowul. kafuma kaful. karanum no han na seren nana am hefin tus hefin tus o he duka le jaram na jaram ka anona ma te du fus on ge komini way baba e bala na ma seren la ha ge o de de na wema ma putu mo bu de me seconde a Pape Alioune Diop waa la bëri man su ma bëree si côté yaay damaa war a bëree su ma bëree si côté Pape damaa war a bëree mais yàlla dafa def man ndagaaru laa yaroo fi laa màggee moo tax ñu bari sax ci laam naa si ma bëri mais yàlla dafa waroon a def yàlla dafa waroon a def ma am sens yu bëree xam nga sama nijaay yëngu ñu ma na ma si amul sens yu bëree ba pare comme xale man mbër baaxul ma bëree. mais kii sama diggante maag moom bu ma taxawee wax ne mën naa bëri si wetam wala mënuma bëri appel pour viw la www site papa sow point com ku ko bëgg a seetaan loolu ngay tàppee ci pay per view bi. maa ngi woo sama xarit Amadou Sall. suba Fallou Ndiaye moom mooy organiser arène nationale. serpent noir caatu yaram. ok. dama bëgg nga xool Amadou Sall sama maa ngi koy woo ñëw jàppale ma si combat bi dama fay sama borom. ayca papa nga woote parce que yaakaar naa ne sa mbokku pël yaa ngi nii waa Fulaadu comme séeréer bi mi ngi lay làkk séeréer xam naa ñoom après ñu def yëfi pël ayca yëgal leen tuuti yóbbu ñu Fulaadu c'est le Fulaadu c'est